Le nouveau tour initié par le leader de passé Ousmane Sonko en vue de la présidentielle de 2024 commence à porter ses fruits. Après le président du mouvement Agir pour Malikunda, Mamadou Dia, le parti passé enregistre un ralliement de taille. En effet, le président du M2M, Maguette a déposé ses baluchons auprès d'Ousmane Sonko. Ce mardi, c'est l'étape de Mbour, mais le département est déjà quadrillé par la gendarmerie, d'où le risque d'une tension. Sur l'info africaine, le secrétaire général des Nations Unies présente ce mardi 18 octobre son rapport sur la situation au Mali devant le Conseil de sécurité pour la période juin-septembre. Le rapport est une forme la suite de la mission dans le pays. Deuxième point les accusations les autorités maliennes de Sur l'international, les autorités russes ont donné le bilan définitif du crash de l'avion militaire qui s'était écrasé à Lex. L'accident a fait 13 morts. Elles ont également annoncé avoir arrêté les recherches. L'avion russe su s'est écrasé lundi dans le quartier habité de Lex, provoquant un gigantesque dans un immeuble de cette euh, ville située au bord de la mer d'Azov, proche de l'Ukraine. Nous terminons par le Sadio Mané est arrivé deuxième dans le classement du prestigieux Ballon d'Or France Football derrière Karim Benzema qui a remporté le trophée. L'attaquant sénégalais du Bayern devient ici le deuxième joueur africain à monter sur le podium du Ballon d'Or après le sacre de Georges Weah. Sadio Mané a également remporté le trophée Socrates, une nouveauté de l'édition du Ballon d'Or. Il a désigné pour son implication au Sénégal où il a construit des écoles et des hôpitaux, Sadio Mané a été félicité un peu partout dans le monde de ceux qui ont réagi. pour sa deuxième place au Ballon d'Or, une performance jamais réalisée par un joueur africain depuis le sacre de George Weah jour des performances exceptionnelles, a écrit le président Macky Sall sur les réseaux sociaux. Le portier sénégalais Edouard Mendy, quant à lui, a été classé quatrième meilleur gardien. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de votre